me présente, euh, c'est Omar Gaye. C'est dëkk Golf Sud. Omar avant tout euh, dañuy nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk turam ak santam. di nuyu suñu yaay yi nga xamante ne moo ñoo ñu tax a daje fii. avant tout dañoo ñëw pour tey ji wax leen tey ji jafe-jafe yi nga xamante ne tey jii ñi nga xamante ne ñooy agent wu mairie Golf Sud ñoom la dund. dans un premier temps dafa am loo xamante ne moom la maire bi nga xamante ne moom la ñu installé euh, le 23 janvier bii passé fii ci Golf Sud mu toog fii amagu fi sax trois mois ba mu ñëwee nag scandale bu mag bi nga xamante ne li mu def mooy dàq ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey plus de dix ans diñ ne nag nit foo liggéey plus de fukki at yaakaar naa ni kër googu sa kër la te it euh, boo leen xoolee ñi nekk suma ginnaaw ce sont des maire de famille ay soutien de famille raison raison pour laquelle combat bii nii nekkul combat wu mais combat citoyen la ci loolu nag ñu taxaw pour wax tey jii li nga xamante ne moo am ci commune Golf Sud bi waa Golf Sud xam ni seen maire bi ñu fi teg dafa ñëw pour pare xettale waa Golf Sud ñëw ñu nag pour wax rek pour wax nii pour sànni ndax tey jii koo xamante ne dafa am décision këyit yi dinañ leen ko woon yéen journaliste yi pour illustration ndax tey jii ñu jël tey jii xam nga damay def sax benn historique tuuti ngeen baal ma ndax euh, ñi seen contrat 2019 la tàmbali boo xoolee percepteur madame le maire bi nga xamante ne moom la fi remplacé muy Aïda Sow Diawara moo defal ñi contrat bi nga xamante ne c'est un CDD bu un an ba ñu amee CDD un an boobu ba mu jeexee mu reconduire leen beneen CDD wu un an képp ku xam loi du travail ku xam ne ñaari CDD lan moo ci teg lu dul CDI ki fi nekkoon nag bi nga xamante ne mooy maire sortant bi defal leen seen CDI. lay mooy gor. CDI boobu bañ ko amee muy décision ni ko waa mairie di waxee bañ amee seen décision boobu ki nga xamante ne moo fi ñëw récemment muy Khadija Mahécor Diouf dafa ñëw disqualifié li fi nekkoon yëpp mooy maanaam li fi nekkoon tey yi xoolaatu ko mooy maanaam yoonam nekku ci. ci loolu nag ñuy wax waa Golf xam nañ ne tey jii femmes yii nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw ce sont des soutiens de famille Khadija Khadija warul ñëw. warul ñëw. warul ñëw ñi nga xamante ne tey jii liggéey nañ plus de dix ans ci mairie bi mu ñëw jël leen làq doom dóor doom. dafa jëlee ñi indi fi ay nitam te dafa nekk affaire boo xamante ne affaire de partisan lañ ko def. léegi nag ñun dañuy wax ak opinion nationale ak bi yëpp ñu xam ne tey jii lii scandale gënu ko rey te ñi fi nekk fii ñëpp 67 personnes la jël dàq leen ñoom ñëpp am na ñu am CDI am na ñu amul CDI mais lenn li ñuy wax mooy gis nga euh, mes chers journalistes pour vous dire que ñoom dañoo pour vous dire que pour vous dire ñoom dañoo nul seen courrier yi nga xamante ne dinaa leen ko jox ngeen xool ko seen courrier yi nga xamante ne moom la ñu jox amul corrélation ak li mu wax tey ji boo xoolee tey ji contrat bi nga xamante ne moom lañ leen defal mi ngi jeex 31 janvier bii passé 31 décembre du mois ba ñëwee mu reconduire ko mooy moom courrier boobu mu ñëw rek euh, maintenir courrier boobu dafa ñëw jël maint euh, indi courrier bi nga xamante ne le premier janvier pour vous dire que moom caxase na mbir yi. jàngul. léegi nag euh, mes chers journalistes dañuy wax ak yéen pour ngeen xam ni Khadija Mahécor Diouf ñëw na pour féewale Golf Sud yàqu ko. ñëw na toroxal xam lu ñu doon liggéey ay agents de surface lañ. ay agents de surface yi nga xamante ne ñooy nekk ci école yi ñooy nekk ci hôpitaux yi ñooy nekk ci police yi ñii nga fi gis ay magum jëmm ay kilifa ay mère de famille ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne seen location dàq nañ leen ci. et ce qui est plus grave dans tout ça moom tey jii jël na ay nitam te mi ngi def lu graaw di jël suñuy nit di ci woo ñoo xamante leen di woo ci suuf di leen jël mais ñun combat bi combat collectif la kenn duñu féewale mi ngi def loo xamante ne nag lu dangereux la raison pour la laquelle ñi ngi wax waa Golf Sud gis nañ ki kiñ fi teg kii mi ngi nii ñëw na en moins en moins de trois mois def fi yi te ay golf ay doomu Golf Sud ñoo fi toog des doom des des golfois de cellules souches ay race pure hybride néew fi kii kenn raxuñu fi ñi fi toog ñëpp ay doomu Golf Sud lañu c'est pour cela que ñun nous interpellons le président de la République mm-hmm. tey jii euh, un maire ne un mairie n'est qu'un démembrement de l'État. Mmh. Une maire du moins n'est qu'un démembrement de l'État. Et là, nous, nous, nous le président de la République mu def ci ay jéego wax ak tey jii ñi nga xamante ne mooy le ministre du collectivité territoriale monsieur Omar Gueye ñu ñëw wax ak kii nga xamante ne moom moo fi ne muy Khadija Mahécor Diouf pare pour yàq suñu golf gi. golf sud mooy locomotive Guédiawaye te li gën a grave dans tout ba mu toogee ba toog na plus de trois mois la commune a perdu plus de cent loo xamante ne ñun dañ ci am ay preuves à l'appui elle n'a pas signé les OPV ah agent de surface yi demuñu loolu yëpp mu toog day auditer on n'a pas refusé bañu ñu mu auditer mais on peut auditer tout en continuant le travail mes chers journalistes il faut que ngeen xam ni tey jii ñun golf dafa nekk suñu dëkkuwaay boo xamante ni caaxaane wuñ ko. affaire de partisan c'est révolu. est-ce que yéen est-ce que da ngeen di soupçonner une récupération politique si. c'est ça loolu sax moo nekk en en en au devant de la scène ndax tey jii bu ñu ñëwee tey jii ci mairie bi. ñi nga xamante ne ñoo fi ne man je vais de parti mais tey jii ñi nga xamante ne ñooy ay njoñam ñooñu la fi indi pour dàq ñii loolu la fi def. door doom làq doom dóor gis nga nag euh, euh, mes chers journalistes lii nekkul loo xamante ne lu caaxaan ça ça dépend de la de la survie de euh, d'une vie humaine mooy maanaam ñi nga xamante ne dafa dépendre seen i man ñii bu ma toogee tey ji dégg ñoo xamante dañ naan ma fay ñu ma fay fay ñu seen location trois mois fay ñu leen ko tey ji loolu dafa doon loo xamante ne dafa dafa état état état d'âme la ñuy waxee en fait raison pour laquelle nous interpellons la population de Golf Sud ñoo xam ni juum nañ kii nag lañ nar a wëyal ci juróomi at ce qui est grave juróomi at ñu nar a wëy moom muy jël suñuy yaay suñuy rak suñuy xarit suñuy doomi ndey dàq leen lan ngeen fas yéene def daal vraiment moom bu taxawee fu mu taxaw. ci loolu nag ñun bàyyiwuñu mbir mu sedd dem nañ inspection du travail déposé nañ on a pris des avocats duñu bàyyi mbir yi mu sedd lenn nag day am day mën a reconduire ñi ci jàmm mu liggéey bu ko mënul du doxal fii ci Golf Sud. et dañuy saluer le maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara xam nga lu mu def. les agents les agents de Fera. dafa reconduire plus de deux cent cinquante éléments te xam na ni ñooñu ñëpp kenn du ci ay nitam. mais tey jii kooku bu defee loolu et nous savons que c'est un opposant bokkul ak bi bu ko neexoon tey ji mën na ñëw dàq deux cent cinquante éléments yi nekkoon FERA yëpp mais loolu c'est un geste à saluer mais Khadija Mahécor bu ñëwee même pas trois mois bëgg licencier soixante sept personnes là c'est grave. très grave voilà pour plus d'éclaircissement rek damay bàyyi na maman moom mi nga xamante ne tey jii moo jiite euh, nu ñu koy waxatee bi mu wax ci jërëjëf. salaamaaleykum population bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax ka ni ñun jigéenu golf yi dix ans ñi ngi liggéey ci mairie golf bi ñu fi gën a tuuti li ñuy liggéey sept ans lañ fi def Khadija Mahécor ba mu ñëwee première chose bi mu def trois mois sans salaire mu dàq ñu ñun ñëpp indi fi ay nitam teg leen jour bi ñuy dàq jour boobu la indi ay nitam teg leen kon ça veut dire ba mu jëlee mairie ba tey dafa toog di jël ay nitam pour indi leen sunu place ndax jour bi ñu ñëwee di jël sunuy notification jour moom lañ fekk ñu remplacer sunuy place nangu ñoo fay sunuy salaire waxul lu ci jëm naa leen fay ñun nag tooguñu nii rek sunuy këyit yëpp dafa nekk ci yoon ndax dañoo liggéey ñun ñëpp dañoo liggéey boobu ba léegi ñu ngi liggéey dañoo am contrat deux ans ba ñu amee contrat deux ans madame la maire Aïda Sow Diawara mu fi jógee woo ñu réunion ni yoon moo ko may ni nañu defal ay embauchement kon ay décision la ñuy defal kon moom bu ñëwee warul wax ni suñuy décision du ko jël ndax ñun ba ñuy liggéey ci mairie bi nag moom mi ngi këram toog ñun mairie bi mooy sunu kër mooy sunu lépp amuñu lu dul mairie bi la preuve ay nitam yu fi indi ñi ngi nii mënuñoo raxas duus yi mënuñoo liggéey ci hôpital yi mënuñoo bale mairie bi ñoom ñëpp ñi ngi démissionné te loolu nangu koo accepté ñoom ñëpp ñi ngi démissionné ñun ñi nga xamante ne liggéey bi ñun ñu ngi koy liggéey 10 ans xam liggéey bi bu baax lu tax mu bëgg ñoo toroxal ndax lan affaire politique ñun politique ñu politique teguñu fi bu doon politique moo ñu fi teg kon dem nañ bu yàgg ñun liggéey moo ñu ñor nañu delloo sunuy liggéey fay ñu sun 3 mois avance loolu rek ñu ñor amuñu doole nag amuñu ku ñu jàppale mais dañoo bëgg àddina Sénégal nañ ñu dégg xam ne maire bi nii lañ def toroxal ñu ñun ñëpp ku ñu mën jàppale na génn jàppale ñu ñun ay mère de famille lañ ñoo yor sunu kër yi boobu ba léegi yalwaan la ñu sant ndax boo dàqee ay nit amuñu lu ñu fayee seen location amuñu lu ñu dundee dañuy dem di yalwaani ji wala ñuy dem di def lu bon te loolu ñun ñoruñu sunu liggéey moo ñu ñor dañoo bëgg a liggéey waaw.